waaw mbokk yi Joal Fadiouth Gassabine comme ni ñu leen ko waxee rek tey ñoo ngi fii ci coalition gox bees di Youssou Kairé tey moo def benn karawaan ñu ñëw pour xool si ko xool nu mu toogee ak nu mu dugg si karawaan bi gis ngeen ne moom mooy génn nii mooy coalition gox bees ah tey Youssou cosaan la indi de Youssou cosaan la indi cosaan la indi tey moom moo ñëw pour def karawaan bi waaw Youssou Kairé ngi noonu gis nga am na ay mbokkam dugg bi moo dugg bi noonu waaw ah gars yi wusu nañ ko de macha allah. Mhm. ah gis nga mystique bi gis nga mystique bi dara yombul dara yombul vraiment. doy na waar doy na waar doy na waar. gis bu mel nii jaaj. doy na ah. bees Youssou Kayré mooy préparé pour def caravane gis ngeen ko moom mooy génn cote bi noonu waaw lii nag këlin bi moom boo ko gisee sa xel di dem te cosaan. mu mel na Youssou li mu wax moom lay won sénégalais yi ne daal toog naa waaye nag toogiwuma nen gis nañ ko préparé wu na def na li nit di def képp kuy wuti lépp looy def Youssou Kairé mi ngi koy def ah, xar fa xuufa yeeg ñama ñama yeeg yëpp ci biir gis nga ko mooy bëgg départ pour dem def karawaanam di nuyu waa sowal fajur nga sabit ñëpp di am nekk ci bu baax baax di wax ne la waaw nee na jeex na nee jeex na ah Youssou nee na jeex na de Youssou nee na jeex na Youssou nee na jeex na nee jeex na jeex na jeex na jeex na waaw xam nga rek waaw waaw gis ngeen ko kon départ baa ngi nii mi ngi départ pour dem Youssou Kairé mi ngi départ pour dem defi karawaanam comme ni ko yeneen candidat doon defee waaw mbokk yi Joal Fadiouth Gassabin waaw Youssou Kairé ngi noonu mais galo li doy na waar li doy na waar doy na waar Diagne Diagne musuma gis lu mel nii Youssou Kairé daa ñëw mystiquement te nee na lamb ji jeex na nee na jeex na nee na jeex na gars yi ngem nañ mbër mi Youssou Kairé la mooy mbër mi ngem nañ ko teg nañ ko ci axe xoolal moom mbooloo vraiment mbooloo mi waaw mbooloo mi mbooloo mi bari na foo sànni batt mu tag foo sànni batt mu tag ñi ngi ànd ak coalition gox yu bees leader bi di Youssou Kayré di def karawaanam tey tey nag ku ne xam na ne fi la bi di yem suba ñu noppalu dinaa suba ñu ngi waaw waaw saa yi loo yëg loo yëg loo yëg kontaan barke sëñ Tuubaa damaa kontaan bi fan la fan la fan la ah, affaire bi yaakaar la. ah yaakaar yu bëri la moom parce que Seydina turul moom ah. keneen du ko fi bi la fi la dëkk defar dëkk bi ñun Youssou Kairé la ñu wax ah, kon Youssou départ na comme ni ñu ko waxee woon rek Sifa TV Youssou mooy dem nii pour def karawaanam gis ngeen ko am na lu mu téye loxo bi gis nañ Youssou am na lu mu téye loxo bi waaye tamit gis ngeen ko boo ko xoolee sa xel yi dem ca sosaan soo xoolee sa dem ci mystique nga xam ne Youssou mii pare na affaire yi daal léegi xelam dal na non xelam dal na Diagne Youssou génn na ak mbokkam ak waa koñam ak dëkk bi vraiment vraiment Diagne Youssou xelam dal na non boo gisee mbooloo mi sa xel day dal man mosuma gis lu mel nii boo gisee mbooloo mi sa xel day dal ah fii nag moom tey ko fi taxaw moom da nga fees dellu mystique moom mystique bi bari na. waaw Ibrahima kan moo nekk noonu. ah tey cosaan ngay gis de sa xel dem ci cosaan boo xoolee lii sa xel dem ci cosaan nga xam ne tey yuusu cosaan la ñëwee tey daal. ah lii rafet na macha allah tey daal gars yi cosaan lañu jugee. ñëw def seen i kii yu baax. vraiment foo sànni matt mu tàj.